Balla Gaye 2 mi fël-fëlaale euh, kile di tafatin euh, fële ca xam nga moo nekk arène nationale loolee euh, jeex na tàkk di lamb ju mucc ayib ju ngeen doon dund ci Aladji Malick TV ci version ojo en direct lamb ja nag la ca gën a coqar mbuj mooy Balla Gaye 2 mi ko dóor ba mu dem kër docteur ñëwaat Balla dóoraat ko ba waa docteur ni ko sawaay est-ce que mën nga continuer lamb ji Balla bàyyi fa dóor ya daal di koy jàpp daan loolee nag mu nekk lamb ju mucc ayib joo xam ne gone géejawaay gi am na ko lamb ja nag lu tax mu gën a neex mooy Balla Gaye mbooloo mi topp ci ginnaawam mosu leen a rusloo benn yoon dafa mel ni lamb ji 2-0 la 2-0 nag bu ñu ko déggee mooy ñaari victoire consécutive yi nga xam ne teg na ko ci kaw Tafatine kon yaakaar naa ne Balla moo man Tafatine fuuf ah, taddu moroomam Balla Gaye 2 nag bi muy jege këram daanaka booba 17 heures a ngi bëgg a jot loolee ñu bari amoon ci ak naan Balla récupération totale la bëgg ba mu demee ca lamb ji tamit gars bëgg a yàq lamb ji buntu ba mu waroon a jaare gars yi karkarloo ko ah, taxaw fa loolee dund ko ci Aladji Malick TV taxaw googee nag biir arène bi daal di def la ko foo doon tax a jóg daan ngeen gis ci image yi nga xam ni image yu am solo Balla Gaye nag seen xol sedd gu yi ci mel ni Assis Ndiaye mi nga xam ni bokkoon bokkoon na ci indi ne sax demuñu woon ak seen i jëm ci lépp loo xam ne jumtukaay la buñ mën a seetaane làmb ji ngeen gis ambiance bi gis mbooloo mu bare mi nga xam ni fii may waxee ak yow ñu ngi ca buntu kër Balla Gaye mu am solo bu baax a baax ci victoire boo xam ne gars yi leen victoire bi euh, euh, a def mu am solo bu baax a baax loolee euh, dana soxal kaddu kii di Aziz Ndiaye bëgg nañ leen koo andil bu ko defee mu faram fàcce journée bu mucc mucc ayib bi nga xam ne teg na ko ci taabal ji